kon nag képp koo xam ne yàlla may ne la nga dëkk Touba ngal la bul tas yaakaaru ñi nga xam dañoo jàpp ne ku dëkk Touba rek da war a jub ndax am na ñoo xam ne jàpp nañ ne buñ ne tuubaa la ñu jëm rek dañuy daal di defaru bu baax a baax defaruwaat waajaat euh, jàpp ne barabub jàmm yàlla te barabub jàmm yàlla la fekk jàpp ne waa Touba itam ñoo gën a jub ci àdduna a ah, loolu nag laa gën. mooy suñ ñëwee fekk ko ci ñun ñu bañ a euh, maanaam tas seen yaakaar ci wàll googu noonu ndax jàpp ne Touba ku fi dëkk da war a jub nga ñëw fekk waa Touba ñu mel melokaanu woo xam ne ah loolu sagalut dëkk bi sagalut borom dëkk bi loolu kenn ku ci ne war na cee bàyyi xel bu baax a baax euh, kon képp koo xam ne da dëkk tuubaa war ngaa bàyyi xel ci Euh, di topp ndigal di bàyyi tere topp ndigali lislaam yi di bàyyi tere lislaam yi ndax loolu ku ko def sëriñ boo xam ne ne wa jannatan li saalikin muridi képp koo xam ne danga ngaa sóobu nam mu jëmmi suñ borom subhaanahu wa taala euh, di def ndigal di bàyyi tere tuuba àjjana lay doon ci yow àjjana lay doon ci yow mooy doo am benn jafe-jafe loolu ci ñaan yi ak pàgguteef yi la suñ booleel képp koo gis tuubaa rek mu am ay jafe-jafe yenn yi rek na xoolaat boppam ndax sëñ bi ñaan na fi eh, ay pàgguteef yoo xam ne yu yaatoo yaatoo yaatu la kon ku dëkk tuubaa war naa am comportement bu baax a baax a baax gëm yàlla lool nangoo jaamu yàlla nangoo baax ba nga xam ne képp ku ñëw royukaay ngay doon sëriñ ba nee na woon koo xam ne daa jëm si ci man dajeeg kuñ ne murit la kooko tax ak siwut maanaam nga xam ne dañ si sëñ bi laa jëm si dajeeg benn waay ah, kooko jël kooko jëralu ko mu agsi si sëñ bi nee na du ñu du ma duñ jéggi siraat layowuñu ko ndax tooñ la ndax yaay tuddoo sëriñ bi yaa ne ci ci dëkk bi nga dëkk ah, mel melokaan woo xam ne ku la gis daan ne acam daana wax ne itam rusloowuma sama benn taalibe kon ngal la bu leen rusloo ndax sëriñ bi fi mu jaar dégg naa bi mu tukkee ba ñëw dane maanaam maam Cerno maanaam topp leen sama mboor defuma lenn lu may indil kersa wala leen ko indil kon kooku wàcc na ndax fi ko tubaab bi jaarale dañ naan rek juróom-ñaari at ak lu topp waaye fanweeri at ak ñett yoo xam ne tubaab bi da koo téye ba sëñ bi wàccub liggéey yóbbu Gabon lam fa daj nee na lu dul génn guru rek moo ko gën a gën koo sedd euh, buy nett li ndakaaru dangay xam ne lañ ko fa def ku am sago la waaye lu metti la nga xam ne daana ci bu ko daan nettali ba ñenn ñi bëgg a saalit dana na waaye saalituma man saalituma nga xam ne metti na te nee na ni ngeen ko yëge rek laa ko yëge ñu yóbbu ko Gabon nga xam ne foofa nee na moom daanaka xanaa faatu rek la fa dëkkut waaye luy metti dal na ko ah te teewut kenn mësta dégg ndax bu amoon ñu génne ko fu ñu ne sëñ bi wax na fi lii ñaan na tubaab bi lii jóge fa ñu yóbbu gànnaar jóge fi ñu yóbbu Thiène Jolof résidence surveillée jóge fi ñu indi njaareem résidence surveillée ba mu wàccul liggéey radiyallahu taala anhu Touba gi rek bëggoon na fee ñëw waaye mënu fee ñëw ndax lan fas yéene wut a ñaan tubaab yi lu toll ni tarfatal ayni ndax bu leen ko ñaanal ñu may ko ko waaye du ñaan tubaab bi dara nee na wax naa ne du ma tàllal sama loxo lu dul ci yàlla subhaanahu wa taala kon ku mel noonu ku mu doon sa sëriñ am nga sas wu rëy rëy maanaam am nga sas wu rëy rëy di ko tiitaroo de dëgg la di ko sagoo yi dëgg la maanaam mu doon sa sëriñ it sag bu rëy rëy la waaye yow it war ngaa mel melokaan woo xam ne ku la gis dana xam ne sa amul moroom suñu ab wax doon na wax ne di wër naan sëñ tubaa amul moroom mel melokaan woo xam ne ku la gis xam ne sëñ tubaa amul moroom moo ko gën waaye ñun li ñuy parewoo rek mooy kenn ku ne di yuuxu rek sëñ Tuubaa am moroom nàngam nàngam nangam bis bi itam nañ ci jàngataat bu baax a baax a baax xam ne tey de neex na waaye jamono dañ ko yóbbu ku weetoon la ak boroomam subhaanahu wa taala yóbbuwul kenn xeex-xeex bi ba indi ba ñëwaat waaye defut lenn loo xam ne yàlla dana ko ci mere wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala kenn di ko ci yëpp foofu la nekk kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo war nañ koo sagal bu baax a baax a baax ku ko def sa bopp nga ko defal ndax moom wàcc na ndax nee na sama yoon wi àgg na foo xam ne kenn mënu ci dee defar dara kenn mënu cee yàq dara ndax suñ borom ak ko may waaye nee li xew mooy di jéem a defar ba far defaru wala ngay yàq ba far yàqu yal na ci yàlla musal ci yàq kon loolu rek ay kàddu la yoo xam ne kenn ku ci ne war na cee bàyyi xel baax a beneen ba sant gii nag ñu baree bare bernde bi rek la ñuy bàyyi xel bernde bi ci la bokk te it mën naa am sax bu jiitu ci waaye jaamu yàlla gi buñ ko sàggane ndax kër sëriñ bi nee na woon sant yàlla alhamdulilahi ci aw làmmeñ te cër ya nekk ci lu naqari yàlla nee na bu dee cantit du cant ngay dolli ndolleen nga tax suñu borom naan la in shakartum na ko nee na lan mooy sant yàlla mooy ngay jël sa cër yépp génne ko ci lu naqari yàlla te sa menn moroomu mbindeef mënta waxaat ba nga delloo ko ci nee na ak jël sa cër yi nag dugal ko ci lu neex yàlla te sa benn moroomu mbindeef mënta wax ba nga génne ko ci génne ko ci li yàlla dugal ko ci lu neex yàlla nee na boo ci saxee ab diir suñ boroom dana la ubbil bunti xeebal yoo xam ne moom nga bëggoon di ko wër te xamu foo koy jële te kenn mënu la koo jox ku du sa boroom bu boobaa nga ne alhamdulillah ci sa xol ak saw làmmiñ suñ borom waxanteeg yow boo ko déggee boo ko déggut ne la fekk yaa ngi sax ci lii rek may sax ci lii inna allaha laa yugayiru ma bi xawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim yal nañ yàlla doolee dimbale rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxira xasanatan wa fi laaxira xasanatan wa qina azaban naar rabbana laa tuzig qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab waftax lana kulla baabin kunta faatixahu lisaalixina min alxayraati yallahu